xibaaru tàggat yaram Pape Abdoulaye Der asalaamaaleykum. waaleykum salaam rahmatullah Ibou Kane. Sénégal Côte d'Ivoire samedi la gaynde yi amal nañ seen ñetteeli tàggatu tey. gaynde yi ñi ngi seen wàccaay ñetteeli séance d'entraînement bi bu ci mujj ci ngoon la woon ca Dakar Sacré-Cœur ci suba daje nañ ca stade Léopold Sédar Senghor niñ ko defee woon démbit ci ndorteel li ñaar ñoo manqué ci équipe bi ndax euh, yéex a agsi Ibrahima Touré bu Monaco ak Cheikhou Kouyaté may bàyyeekoo ca Belgique. liñ ci mën jàpp rek euh, mooy euh, ci kanam incha allah danañu gën a faram-fàccee séance d'entraînement yooyu ak euh, suñu reporter ya fa teewoon ci émission spéciale biñ leen di jagleel tàmbali nañ ko ci altine bi ba ci bësu match bi lépp lu aju ci wàllu Sénégal Côte d'Ivoire boobu Mame Fatou Ndoye Cheikh Tidiane Diaw ak seeni gan jàpp leen ni it dana ci bokk tey Malal Junior Diagne ak Ndofène Fall Malal Junior Diagne dana gën a leeral sax junni bi yoo xam ni incha allah groupe Futurs Médias am nañ yéene euh, baaxee ko supporters yi ñu jàppale ji équipe bi waaye it ay rajo rajo yoo xam ni danañ leen ko baaxee euh, ci ñi nga xam ni naru ñu am sensu dem ca match ba ñu mën koo déglu it euh, ci RFM incha allah ci kàttanu borom bi kon ci kanam tuuti lay doon ci yaatal gannaaw xibaaru nasaraan si ba léegi ci wàllu match boobu ci kanam tuuti huit heures ci guddi gi El Hadj Malick Gakou ministre des dana teew ca stade Léopold Sédar Senghor nemmee nemmeeku ji stade ba ndax lépp yemb na rawatina projecteurs yi équipe nationale cadet bi moom euh, gaynde yu ndaw yi qualifié nañ ci deuxième tour euh, Coupe d'Afrique des Nations euh, te it ñi ngi xalaat ni Côte d'Ivoire lañ nar taseel la waral seen qualification te joué wuñu nag Sierra woon mi ñu waroon a jàkkaar lool dañoo mujj rocc seen bopp ci jongante bi dañ cee génne seen bopp Dominique Colli seen entraîneur ñun dañu pare pour jouer Sierra ñu dégg ni Sierra ñun dematuñu parce que Sierra dafa dafa jënne boppam ci jongante bi bokkatul waaw loolu moo tax nag ñun ñu nekk fii di xaar suñu kilifa yi bàyyi ñu ñibbi. ci li li ñuy pare xale yi ci tàggat bi pour pour jongante ak ñeneen ñi euh, jotoon nañu dañ ci ñaari fukk doom ñaari fukk xale <laughs> ñooñu lañu indi regroupement bi. yàlla def match amul mais yàlla may ñu tam match bi mu doon ñu am match amical ak Guinée Conakry ba ñu laaj match ñoom ñëw nañu ñëw fii Sénégal tey lañ koy joué Pikine ci dëgg-dëgg yi am ba tey yii la ñu joué de Côte d'Ivoire mais nag dese euh, naa wóor daal jongante boobu dafay am ci ci ci ci ñaari euh, tour dañuy dañuy fekk si ñu ñu fekki leen. mais dañ ko teg ci le novembre ci diggu novembre daal ak dam jël benn fànnu décembre. dañuy des ba léegi ci ndaw yi ak Ousmane Baldé 19 ans fukki at ak juróom-ñeent la am réserve Barcelone lay joué Abdou Aziz Ndiaye di ñu miineel ak moom. bëriwul lu ñuy faral di dégg footballeur sénégalais ca FC Barcelone mais jàpp leen ni kii di Ousmane Baldé joueur la ca Ciutat Esportiva Juan Gamper benn centre formation FC Barcelone. judo Bargny footballeur bi def na ay jaloore yu rëy ci équipe boobee. balaa may dem balaa may lii quoi nekk na si centre si école football bu Clax bu Tëngéej xam naa ne ñëpp xam nañ ko bu Thierno Youm lañ koy lañ koy lii après bi ma fa nekkee deux ans dama nekk si Guelwaar di cadet war naa fa un an cadet championnat bi am naa si dugal naa si bii yu bëri bon. daal waaw championnat am naa si ay ay trente boo xam ne championnat bi antérieur la quoi bi passé c'est centre formation bi. Ousmane Baldé convaincre na responsable centre formation club catalan bu mag bi moom mii nga xam ni fukk juróom-ñeent at la am. ay club yu mag yu nekk ca Europe soxla nañ ko bu baax waaye Baldinho comme ni ko xaritam yi di woowee am na yeneen bëgg-bëgg li ci mel ni football équipe aw Barcelone ak équipe nationale bu Sénégal. ay di waaw différents euh, club yoo xam ne waxtaan na ñoom jóg naa waxtaan na ñoom dama waroon a si benn deuxième division ci déport xam Deportivo waaw i am na club yoo xam